ci eh, dellu siwaat ci ñoom Adama Fall ak professeur Marie Rose euh, intervention CEDEAO au Niger lan moo ci sa xalaat waaw euh, loolu dafa nekk euh, ñun ci suñu gis-gis toujours une une forfaiture de nos mm. chefs d'État parce que dañuy gis ni ñuy noter depuis un certain moment mooy Euh, les chefs d'État de la CEDEAO sont en décalage ak seeni population seen gis-gisu population c'est d'ailleurs pour ça que euh, sur le euh, vraiment ci territoire bi gis nañu euh, beaucoup de coups d'état militaires yoo xam ne intervenir nañu euh, loolu mu nekk aveu boo xamante ni euh, sur le plan démocratique dafa mel ni dañu désavouer les politiques wala la la la la présence en fait euh, démocratique bi nga xam dañ koy salfaañee toujours euh, moo tax dafa mel ni l'autorité militaire dafa jël responsabilité am euh, ci pays yu bëri euh, ni lii dafa war a dakk alors que ce n'est pas la bonne voie ce n'est pas la bonne voie c'est par la voie démocratique que la ñu war a opérer ay changement majeurs c'est par la voie démocratique que la ñu war a gis ni euh, chef d'État yi nga xamante ni seeni jeunesse seeni population ñoom ñoo leen pousser à la magistrature suprême mais population yooyu la ñu war a déglu leen seeni décision dafa war a aller dans le sens de ñi nga xam ne ñoom ñoo leen élire mais dañuy gis rek ni que malheureusement saa bu ñu xasee ba yéeg euh, seen gis-gis euh, vraiment du bokk ak li nga xamante ni loolu la population bi euh, yaakaar mm. moo tax tey jii encore une fois gis nañ ni énième coup d'état boo xamante ni amatina encore au Niger mm. ba population bi ci boppam ñu mu ñoo jóg ne plus de coup d'état sonn nañu ci coup d'état euh, loolu tegu euh, soutenir tuñu ñi nga xamante ni ñooy population bi la wo vient encore un mettre un coup parce que man noonu laa ko mën a tuddee parce que je pense qu'il y avait d'autres moyens d'autres voies yoo xamante ni euh, mënoon nañ ci dox parce que bu fekkee ni dañu ne dañuy dem guerre euh, contre le Niger mais suñuy population suñuy frères suñuy sœurs ñoom la ñuy euh, encore une fois rey keneen du fa dee euh, France mi ñuy wax ba ñu ne pépp seen population seen ressortissants yépp la ñu yëkkati yóbbu ñu dem donc ce sera encore entre nous ñun nag africain ñoo war a mën a yeewu une bonne fois du ma ne sax ñun africain ndax war wax dëgg fa yàlla les populations sont en train de se réveiller petit à petit c'est plutôt aux dirigeants c'est plutôt vraiment aux chefs d'État de comprendre que aujourd'hui la politique n'est plus l'asservissement de leur population la politique va aujourd'hui dans le sens du changement mooy maanaam aujourd'hui inclusivité mënatoo nekk kenn koo xam ne dañuy ñëw teg la ci benn piédestal boo xam ne yaay buum yaay buum yi dañ lay désavouer mesures yi nga xam ne jëloon nañ ko au niveau du Mali mi ngi nii dañ ko mujj yëkkati te dara xewu ci. parce que <laughs> wax dëgg fa yàlla ça n'a pas marché. ci ñoom la gën a métti. te jant bi mi ngi fa ba tey. population bi di leen gën a bëgg. ce n'est pas encore une fois la bonne voie. mais dafa fekk ni ñi ñu ko dénkoon ñu waroon liggéey li ci war. dañ ko liggéeyul moo tax ñeneen ñi di ut yeneen voie mm-hmm. man noon laa ko gisee